nooray ni yaa baax wa seynu laay yow sama ma gën doon na ngay nuy wan rasulu laay duniya wa uxra mu jàlle noow bay wa seynu laay shérif dangaa baax te yaatu teen bu tey moom nga may nuroon mariyaag marul yaa ngi lay xëccoo ngir xër ci yow doomi roowalaay bay wa noo jugeel ma Sénégal jàllal Maroc yow nga dem France jaar États-Unis waa Itaaliya saaba yaa nga naan yow am nga ndam doo miro walaay bay wa seynu laay te sax may seet yow yaay docteur ay jeunesse ndax defar nga noow wommat nga sanga jubal nga yaa dëggal sa waxi maam rasuululaay Cherif walaay isaa ja dem xalifa alasaan gërëm na la te seyfu lislaam gërëm laaw muy abdulaay ndaxte doy nga yow am nga ndam doo miro walaay baay Useynu laay doo walaay isaa dem na Cherif danga baax te yaatu teen bu tey bu neex moom nga may nurool mariyaak marul yaa ngi lay xëccoo ngir xer ci yow ya do miro wala yow ya samaam garab ye ka dan su jotel billahi njanaaw yi ño dan teral libas ci bindu dim nga kay geme ko ko moy rasulullah bayu baay bu ñépp a jàqee yawmal xiyaam yow sa baay taxaw libaas mu naan waax yaa rasoolulaay yaa habibalaay tàbbiyal janaaw keroog dañuy taxaw naan limaamulaay yaay rasoolulaahi limaamulaay yaay limaamu laay yaay rasoolu laay roowa laay isaa soppe rabbana baay waseynu dinaa ka jooy baay waseynu muy jooy xol doomi roowa laay yàlla na nu yàlla fayal baay waseynu yàlla leer dolli nu ko yërmande

ci baxu mamam ci baxu ay magam ak rakam yeb di ndokel l'islam bi yeb di ñaan sayyidina limaamu laay mu bax mi yàlla nu yàlla dolli ay leeram wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh